asalaamaaleykum mbokk yi nga xam ne may déglu ñu ngi leen di ziar di leen jaajëfal yéen ñi nga xam ni am lu ñu bëgg a ñëw yëkkati wax muy eh, lu jëm ci élection euh, présidentielle 2024 yii la waaye nag ab leeral muy dafa am lu xew te loolu xew Sénégalais yi bàyyiwuñ ci xel ba tax na kenn ko ci nekk yaa ngi teel a teel ñu ngi ànd ak ñi nga xam ne ñooy seen ay militants. di dem ci ay tournage campagne mais nag ba léegi nii dafa am loo xamante si war nañ cee bàyyi xel loolu lan ak lan la war a nekk ci loolu lañ war a dikk ak bi ci njëkk mooy président Macky Sall ak conseil constitutionnel tey kenn ku ci nekk xam na ni seen taxawaay ci lu jëm ci élection présidentielle yii nii tey bu fekkoon tey dëgg moom ciy dox wala tey mën nañu jàpp ni eh, nëruñ ci ay njuuj njaaj wala ak i tappale ak yeneen ak yeneen tey ji war naa fekk ay élection ñu amal ko bu yàgg ba kii toog toog mais boo leen gisee lu mel noonu dafa am loo xamante ni daf ko ci nas ci yan ak yan dañu bëgg a dikk ak yéen mooy tey ginnaaw bi mu jëlee lépp loo xamante ni lu jëm ci wàllum pouvoir bi fooy di mu ko fowee jàpp nit ñi di ray di tëj di def lu ko neex boobu ak léegi kenn ku ci nekk gis na li nga xam ne moom moo fi jot a jaar tey ñu ci bëri ci jeunesse bi dañoo ñàkk seen bakkan tey bu dëgg doon dox tey jii nii maanaam tey dëgg di dox si réew mi tey heure bi day fekk ay élection am ci réew mi waaye dafa am leneen ay élection am ci réew mi ñooñu noonu fekke ko mais dafa am benn général bu fi nekk muy général Moussa Fall lépp lu Macky Sall bëgg ginnaaw bu mu taxawee signé ak moom ni ko tey lépp loo xam ne bëgg nga ko rek maa ngi ci sa ginnaaw dinaa la ko dogalal ca nam fa neexee gis ngeen nag ki ci njëkk mooy koo xamante si taxaw nga rey population bi yépp kon tey bu ñu ci présidentielle yi ci président ñi nga xamante ni ñooy yi jëm ci président ñu jëm ci élection présidentielle yi 2024 yi de tey dafa am lu wax muy dañoo xam ne ni dafa am pexe bu Macky Sall bëgg a laal ngir éliminer ay candidats waxuñu leen nag éliminer ngir éliminer mais liquider complètement ngir lan fexe ba fangale liñ ñaari bool nga fangale leen tey il faut benn noor ci bu ko defee bu boobaa ñu jël benn bi teg ñu leen xaar xaar beneen bi si njëkk ban mooy tey président Macky Sall dafa pare pour euh, comme ni ko Pape Alé waxee mooy pare pour faagaagal benn candidat. ngir mën a dàqaat ay élection yi dañ fi ñëwoon am luñ waxtaan ak yéen bàyyiwoo leen ci xel bi ci njëkk mooy ban mooy président Macky Sall taxawul benn taxawul benn yoon parce que si Lamine Niass dafa am lu mu waxoon te ba léegi dama koy répété di ko répété waat waaw tey eh, maanaam bëri wax maanaam wax wax waxaat du bëri wax si di Lamine Niass kàddu ko mu waxoon ni tey président Macky Sall du ay élection ko fi jëlee loolu lépp bëgg naa ngeen bàyyi ci xel mais nag ana lan moo mën a tax tey jii nii pexe bii nga xam ne mu ngi koy teg ngeen daw ko mooy tey gis naa ni tey organiser wu nañ war a mën a organiser ngi dem ci ci bërëb yi nga xamante ni si fi la ñu a fekkee yenn militaires yi ngir waxtaan ak ñoom mais dafa am loo xamante ni si tollu dafa am loo xamante ni dafa nekk ci ginnaaw li nekk ci ginnaaw loolu lan la mooy tey. président Macky Sall mooy tey ginnaaw Amadou Ba bii nga xamante ni si tey Amadou Ba bii nga xamante si tey jiital na ko sax bëgg ko pourquoi man la bëgg ko parce tey moom Amadou Ba bu daanoo si bi tey kenn dootu ko waxati lu jëm ci wàllu politique am yàqu définitivement ci lan mooy nag xaalis boo xam ne ñu ngi koy buugale di ko ko jox di ko yëkkati ay milliards di ko ko wan tey muy dem ci yenn nit yi di leen am ngir lan di leen corrompre mais bu ñu demee ba ca jour soog ba moom mooy def soog le président Macky Sall day croiser les bras bu ko defee moom mooy fës moom si jëmmam moom président Macky Sall bu boobaa day croiser bras ni moom dama ko yabaloon bu boobaa lépp lu mun di am ci kaw euh, toor bii di kaw Amadou Ba ci lay tege beneen bi si topp mooy gis ngeen tey ñu ngi génn di manipuler am na ci loo xamante ni si manipuler la diversion rejeté loolu laa ko mën a wax pourquoi mu wax gis ngeen que ni ñoom dañoo taxaw daal di am lu ñu publier mooy lan ak seeni juge de corrompu yi tey ku wax ñu jàpp tey amul kuy dem te duñ la mandat dépôt boobu ba léegi kenn ku ci nekk gisal dafa am beneen boo xam ne ci làqu bi ci làqu man la mooy tey kenn ku ci nekk gis na ni ñu ngi manipuler ngir wax ni président Ousmane Sonko léegi ginnaaw wax nañ wàllum amnistie moom buñ ko waxee moom euh, daan maanaam lu jëm ci wàllum baale. tey président Ousmane Sonko kon jàpp bañ ko jàppoon ak jàpp bii ñu ko jàpp bi jàpp bi dafa yàqu tey dañ ko war a bàyyi àtte war tey dañ ko war a bàyyi mënu mënuñ koo àtte ci lenn mooy lan moo waral tey ñu génn di wax ni président Ousmane Sonko léegi day mën a bokk ci ay élection ngir lan di leen diverser dañoo sonn ci wàllum diverser ak yeneen ak yeneen lii yëpp nag boo leen xel yi pexe mooy li ma commencé woon ci début au vidéo bi ba tey ci nii day ñëw que ni moom président taxawul benn yoon ngir organiser ay tey nag mu ànd ko mooy ak i juge ànd lan ak i magistrat ànd lan conseil constitutionnel bi nga xam ne tey ñoom lañ dénk suñu suñu suñu suñu suñu suñu suñu nga xam ne mooy suñu réew tey ñoom ñooy daganal baatu askan bi tey ñoom ñoo war a taxaw organiser ay kenn ku ci nekk bokk mais tey kenn ku ci nekk la ma leen waxoon rek defaral nañ la building boo xamante ni jox la ay maliti xaalis yoo xamante ni si tey buñ koy wax sax ñu ci bëri dañuy jàpp ni lii dañ ko wax rek ngir bàyyi ñoom ñooñu tey bu président Macky Sall taxawoon ni dama bëgg a def troisième mandat ñoom ñoo koy valider bu yàgg mais loolu moom dama naan afaga loolu jeex na loolu tey duñ sa delluwaat mais beneen bi ci dëgmal mooy ban parce que Macky Sall fii la taxaw wax leen ni leen day fonk li nga xam ne moo jëm ci élection yi mais nit yi ci bëri dañ ni loolu mënul nekk mais tey boo leen xoolee tey ginnaaw bi nga xamante nit boobu na ni pare Pain, wayam fayna ndax wayam bu fayitoon tey un mooy bu doon amnistie bay amnistie tey mën naa ni la jour ba njëkkee def manifestation am benn bakkan rot fay ca la waroon a jug taxaw daal di laaj lu xew waxtaan ak wu waxtaan ak jeunesse yi mais boobu boobu tey def ko ngir lan maanaam ni mu taxee woon mooy dina continuer dem jënd ci ay armement te armement loolu noonu mu jënd woon tey jii laa la gën a mën a confirmer que ni tey mu ngi ci biir réew mi tey génnul tey moo tax candidat yi ci bëri dañoo war moytu dañoo war daw lu bari tey même bu jaree tey kenn ku ci nekk am sa localisation moroom kenn ku ci nekk xam sa moroom fi mu toll ngeen di moytandu parce que nag magum magum waxoon naa magum waxoon naa ko moo gën magum xamoon naa ko tey wax nag ci bu mu jotee mooy képp koo xam ne war nga mën a renforcer sa sécurité ci ni mu waree nga jéem a renforcer sa sécurité tax nga xam ni président Macky Sall am na lu muy nar loo xamante si mooy bis bu ci daanoo bu ci nekk ay élection dina gëj a am ci Sénégal te la mu waxoon te ni bërki demoo jaay mu ni ay élection maanaam su ma demee ba nga xamante ni si mënumaa organiser ay élection ci ci waxi ay tappaleem mooy que ni day yëkkati day maanaam day yëkkati réew mi jébbal ko ñi nga xam ne ñooy armée bi ar armée bi tey armée bi ak ñi nga xamante ni ñoo fi nekk di chef de bi macha allah de police macha allah de mais sama gars yi la war a xam ni tey dafa am ñu nekk ci police di ko yàq muy ay nit yoo xam ne ay rôle bandi lañuy rôle lañuy joué loolu nag ñoo ko mën a fexe ba loolu noonu ñu ko ci Sénégal mooy lan moytu lu bëri. ba yéeg ci jour vote bi kenn ku ci nekk tànn ki nga xamante ni moo la doy nga yëkkati ko fal ko wax ni sama gars yi fii laay yemalee vidéo bi di leen wax ni maa ngi juum ci kàddu yi bu fekkee que ni tey ah, dama juum parce que nit moom ah